Euh, sëñ Tuubaa ji fi nekk waxtu wu ne damay wax ne xëy na dëgg la fi mu ne Euh, samay rakk nañu waaye ñoom laa def samay sang ndax sëriñ Tuubaa te mu dëgg ci man kon euh, am naa bés bu rëy si euh, xam li ñu xam ne ci bu rëy bi fi nekk noo ko bokk benn waaye dana wëlbatiku ay yàlla dogal ñu nekkal leen fii waaye ñu gën a xam loolu itam jugaat ñëw ànd ci ñun taxaw taxawaay bu rafet loolu donc ci sant yàlla bu baax ñu sant sëñ Tuubaa di sant ñoom ndax eh, suñu xel dal na bu baax dal nañ suñu tax nañ suñu xel bu baax a baax ndax kër boobu fii boobul eh, li ci am solo sëriñ Ba wax na ko fàttali na mu gën loo dolli ndax fàttali ko rek moo ci am solo ak xam-xam bi kàddu yi gàtt na waaye ñu ci bëgg dégg lépp war ko ci mën a jëriñoo lépp tënk na ko ba tax na suñu xel dal na bu baax a baax. yow ci sa bopp itam li ci am solo wax nga ko dégg nañ ko bu baax a baax dégg nañ ko bu baax a baax kon ñoo ngi sant bu baax di sant kilifa yi fi daje yépp nag xam ne lislaam bokk yi bokk lislaam lañu xam xam ne boo ko bokk ñu ànd si boobu noonu ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. di sant mbokki jullit ñi fi tey ñu fi nekk ñëpp waaw ñu mbokki taalibe yi ñu mbokk tey yi ñoo ngi sant ñëpp eh, la ci weesoo moo di rek sëñ Bass moom xam la wax eh, fàttali na ko mën nga mën ci jaay bu baax a baax fàttali bi ñuy fàttali sëñ bi fàttali ñu soxna si eh, mën nañ cee dolli fa bu baax a baax ci jaay bi li ci def nag kon mooy góorgóorlu dina am na loo xam ne xamul nu mu koy xamul nu mu koy sante kon góorgóorlu bu baax bu jëfi ko moo ci am solo nanu góorgóorlu bu baax dina xam ni mu am sëriñ bi la fi boobu la fi la la fi nekkal nekkal fi ci boroom rek la nekk la nekkoon ci boroom rek la nekk lu doomu aadama ñëpp ko fi andi ndax bu ko gindi ñëpp ma leen seen boroom loolu buñ ko gisee ba mu gisoon sa gis ci rek la nekkoon kon nag ñun ñu sant yàlla bu baax ci bi ñu booleeg moom te góorgóorlu nag xëy na lu mënu ko sant sax waaye ginnaaw xam na ne li mu bëggoon xam li mu nekkoon li mu nekkoon ñu góorgóorlu ci waxtu wu nekk ñu ci gën a dolli ko xam-xam di ci góorgóorlu waxtu nekk di ko fas yéenee nekkal ci mu ko loolu mënuñu ko sant sax waaye bu bu góorgóorlu ci loolu eh, daan def lu wàtte ci sant ko cant gi nag xam nga li ñu li ñu am te góorgóorlu ci. dañ ko fendi woon jaamu yàlla rek ko fendi woon dëgg la jaamu yàlla mu fendi ñëpp ndax moo gën a bind mu dul jaam mu andi lu dina jaamu lool loolu moom ku ci nekk ku ci nekk ñëpp ñoo ko bokk yàlla def na lépp def ba noppi waaye sëriñ bi rek dafa ñëw taxaw temm ca loola joxe de de de de teg ci dundam lépp mu jënd ko ci borom ngir ndigal loolu mu mu mu xam ne loolu la borom digle mu wan gannaaw lépp nekkal borom ci loolu fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis kon eh, ñun eh, sunu wartiif sunu ndono mooy nekkal ko ci li nekkoon rek. sax ci góorgóorlu suñu képp kàttan sax ci jaamu yàlla jaamu yàlla nag eh, dafa yaatu lool eh, ndax liggéey bi moo ci jiitu mu nekk suñu képp kàttan tere yi tegu ci ñu doon suñu képp kàttan eh, waaye la ca dolli ko moo leen dund suñu bopp jël makaarimul axlaaq góorgóorlu ci rafetal xel yi bu baax góorgóorlu ci defar jikko yi bu baax góorgóorlu ci tàggatu bu baax ba mën ko nekk ci li mu bëggoon voilà mën ko nekk ci li mu bëggoon eh, a jëriñante ndax def ndigal li eh, li yàlla li yàlla digal ñu nekk ca li bëgg mu nekkal ko ci loolu lépp li ci ñun makari ma daxaa jikko mu baax ñu góorgóorlu bu baax ñu bëree ci muy baax yi li suñu borom bëgg ci ñun lépp taxaw wëntu fi lépp góorgóorlu ci jikko yu baax yi ci suñu biir moo koy yombal moo ñu koy noppal moo ñu ciy dimbali kon ñu góorgóorlu suñu diggante suñu borom góorgóorlu suñu diggante suñu bopp ah yéenante di aw jiw di jëfee ci suñu diggante yar ak teggin Eh, fas yéene dooni jullit fas yéene dooni taalibe fas yéene yére itam jikkoy taalibe jikkoy taalibe eh, moom eh, ci la lépp nekk dëgg la ay taalibe lañu ak ak taalibe rek la bëgg a door bëgg a yor jikkoy taalibe itam ca la ñu nekk waaye lu jafe la waaw lu jafe la kon nanu góorgóorlu bu baax ci ñi góorgóorlu ci njub góorgóorlu ci fonk suñu diine góorgóorlu fonk suñu taalibe te suñu yëf yëpp ñu yëngu ko di koy taalibe bu mu góorgóorlu ci yor di di koy taalibe rek taalibe rek suñu diggante suñu borom dana yéwén suñu diggante suñu borom jàpp dana yéwén loolu mooy eh, li ci buñ ko toppee eh, waxtu bi àgg si nag waaye eh, ñoo ngi am mbégte bu baax ci jataay bi suñu concept dañ ci buñu soññu nañ ci itam ci li nga xam ne moo nu fi indi ndax suñu diggante suñu borom rek moo nu fi baax waaye la koy a sakkanal di di ko tolli xiima mooy suñu diggante suñu bopp nu gi ci te ñu ngi jëflante suñu bopp ñu def ko te ñu a ko def yàlla rek sax bu ko defee daan am defaru àdduna daan am defaru àllaaxira loolu mooy jëf yi kon nan góorgóorlu bu baax a baax lépp nag mi ngi ci dimbalal suñu ak tawfeex sëriñ bi ji rafet àbb na suñu borom dina dolli suñu tawfeex dina am sëriñ sëriñ bi ndax dimbali ñu ba mën ko nekkal ci eh, ci ci ci ci ndono lii mënu fi ba mënu fi bàyyee waaw ah, dimbali ñu ci ñu ngi bari ñu mën a eh, jaamu yàlla ci suñu biir ndax li ñu def lépp suñu diggante yàlla rek war a tax kon nag góorgóorlu ci fas yéene doon jullit parce que fas yéene doon taalibe fas yéene góorgóorlu fonk suñu diine suñu kéem kàttan te it góorgóorlu ji lu mu jafe-jafe lu doon fas yéene yor di koy tànn woon gannaaw lépp ci suñu xalaat suñu xol bu tee suñu jëmmu yàlla def na ci ci baram lay dogal na ba noppi faw ñu am eh, aajo doomu aadama aajo doomu aadama yooyu bari na lool eh, waaye bu góorgóorlu suñu diggante suñu borom rek loolu suñu borom mën na ko yombalal eh, defaral na ko defal ñu ci barke bu lépp xaj béyee suñu yàq suñu diggante suñu borom te lan war a am lépp ci suñu diggante suñu suñu suñu suñu bopp suñu diggante suñu wala moo doon jaam lépp danañ ko danañ ko am euh, maa ngi jégalu bu baax a baax a baax euh, boo sañoon wax ji gën a nasu gën a jub gën a am njëriñ ñaari ñi ngi tamit ñi ñoo ñoo ngi sant ñëpp waaw ñoo ngi sant jot jotaay bi am na ci dëkk yu rëy rëy rëy ndax barab bii fa tabarakallahu euh, ku mu ñëw. dama daa wax ca bu yàgg ku fi ñëw maam jaara moo la tedd kenn ku fi ñëw rek maam jaara moo la tedd te pëste ba nga xam ne maam jaara ba tax moo nga pëste ba nag ba nag ba nag rek mën naa defaral sa lépp waaw kon barab bi barab bu doy waar la barab bu sell la barab bu bari njëriñ la eh, kon ndox ba nga xam ne am na tawfat di toll ne eh, eh, di jóg fa fa fi ne liggéey ci maam jaara kon noo ngi noo ngi noo ngi am bëccëg mu rëy nanu góorgóorlu bu baax nag day mel ne eh, suñu digganteeg eh, liggéey bi dafay mel ne suñu digganteeg suñu borom rek la suñu digganteeg suñu borom jàmm waaye da ci gën a am solo li ñu def nag mooy góorgóorlu ci suñu wàcc ci àdduna eh, góorgóorlu ci liggéey yi suñu kem kàttan ñuy bay di ko di jéem a góorgóorlu ci ni mu gën a tegee ci yoon ñiy xamu noonu ñiy jaay noonu eh, ñëpp eh, loolu eh, li ñu seen di buñ ci defee suñu yittee la ca def suñu borom moonu moonu seen wuutu yombalal nu ko defal nu ca barke defal nu ca ndam yi tam nu am ak dina am alaxira jërë ngeen jëf